dañ fi am suñu njaboot ñu fi sàkku si xam-xam ci daara ju mag ji nga xam moom la ñuy wax ESMT muy daara joo xam ne dañ fiy jàngale euh, télécommunication informatique télécommunication mu nekk daara joo xam ni nag daara ju ñu ñëpp ràññee ci waxuma ci Sénégal waaye daara ju ñu ràññee ci Afrique muy daara joo xam ni Euh, ñëpp ñi euh, ñiy def télécommunication télécommunication ci àdduna bi boo leen xoolee ci daara ji lañu ñu génnee mu nekk daara joo xam ni kenn naantamle ko ak beneen daara léegi nag daara ji euh, tur woowu mu amoon dafa mel ni mi ngi commencé fa ñu koy commencé faagaagan faagaagandal mi ngi commencé disparaître ndax dañ fi am ay jafe-jafe ci suñu njaboot gi nga xam ni dañ leen di fayal ndax daanaka sax bu njëkk dafa nekkoon école boo xam ne du école bu ñuy fay école boo xam ne ay état ñoo ko seqoon état yooyu ñoom ñoo seqoon école bi donc di jàppale ñi nga xam ñoom ñoo fi génne woon ñu dem ba jamono joo xam ne léegi euh, daara ji euh, état yoo ko seqoon jëlatuñu ko en charge léegi ñu privatiser ko ba léegi euh, waajur bu nekk yaay fayal sa doom léegi ñu toll ci jamono at mi at mi nga xam ni ñoom école daara ji am na ay jafe-jafe ci seen biir ban jafe-jafe la diggante euh, direct euh, direction bi ak jàngalekat yi te mu nekk loo xam ni ñun biñ ñu fiy soog a ñëw bi ñu bi ñu yëgee euh, coow li ñëw nañu ñun parents d'élèves yi jéem koo dem jéem cee dox doxu tànk jàmm daanaka trois semaines trois semaines yoo xam ni njàng mi xaw naa sooxe lool sax lool ndax xale yi mënatuñu am benn cours léegi ñu biñ ko yëgee ndax même laata loolu sax xale yi daan leen daan daan daan nañu toog du ñu leen defal ay cours en ligne yoo xam ni xale yi dañu waroon ñu di jàng si mais cours en ligne boo xam ne yow yaa ngi fayal sa doom dara amul du feebar du dara xale yi toog ci kër ga ñu leen defal ay cours en ligne ndekete lii lañ doon yott biñ ci jotee ñun ñu yëg ko ndax dañ koo yéex a ñu aussi ñun parents d'élèves dañ koo yéex a yëg teeluñu ko yëg dañ koo yéex a yëg biñ ko yëgee ñu dox ci ak sama naataangoo parents yi ñu dox ci suñ tànku jàmm ñëw gis euh, directeur bi waxtaan ak moom dem gis ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, APE mooy ñi nga xam jàngalekat yi ñu wax ak ñoom mu nekk benn problème boo xam ne ñoom seen biir ñoom la waaye du tee ñun li ñu waroon ñun parents d'élèves nga xam ni weer euh, fay gi ñuy fayloo muy ñetti wa pàcc ci at mi mu nekk pay mu cher nag waaye ñu ñuy sant yàlla ba ndax bëgg a dimbali suñu njaboot gi nga xam ne seen avenir la cee nekk waaye lépp loolu ñu ci def yëpp gis nañu euh, directeur bi waxtaan ak moom mu am mu gëmloo ni mën bëgg na bëgg na bëgg naa négocier ñu dem ci euh, étudiants yi wax ak euh, euh, professeurs yi wax ak ñoom waaye ñoom it ñu am fu ñu taxawee mu nekk loo xam ne nag du loo xam ne ñun parents d'élèves ñun ñoo ko mën a lijjanti li ñu soxla mooy ministre bi nga xam ni moom moo yor daara ji muy ministre de la télécommunication Moussa Bokar Thiam fu ne ni parent bu ne koo xam foo mën a jaar jaar nañ pour jot ko bind nañu lettre yónnee ca ca ca ca bërëbam def nañu def nañu nekk pour mu jot ci nee nañ sax jot da ci waaye dañoo talul te nag suñu euh, avenir doom yi ñu ngi en jeu. du et puis mu nekk loo xam ne du loo xam ne dañu koo may c'est pas public du école boo xam ne kenn du fay ñun dañuy fay mu lool waaye li ñu bëgg mooy nu mu gën a gaawee. nu mu gën a gaawee nañu xool nu ñu saytoo mbir mi lijjanti ko dans les meilleurs délais nu mu gën a gaawee ndax su amut loolu ñun am nañu yeneen yoon yu nu mën a jaar. am na yeneen yoon parce que bi ndax kat ñun dañuy fay suñu xaalis yoon a ngi fi dinañ dem ci yoon dañoo bëggoon a tàmbalee fii nga xam ni mooy yéen ñi nga xam yéen yor xarala xarala yi ñu wax ak yéen suñu euh, baat mën a génn ba xañ ba président de la république. monsieur monsieur euh, euh, son excellence monsieur Macky Sall mu jot ci lii. Euh, naata ki euh, ministre bi nga xam ne aussi moo yor lii moom it mu jot ci euh, numérique bi ma ministre ki ak ak directeur bi nga xam ne moo yor mbirum ak télécommunication ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ñu ñëw mën a lijjanti problème bi bala muy egg foo xam ne war fa egg xale yaa ngi ci kër gi jàngiwuñu ñu ngi am ay jafe-jafe te sax jamano ji jiñ ko defee moo gën a métti mooy jamono joo xam ne nen nañ ba ba école bi waaj a tëj xale yi war a dem stage ñi def troisième année man sama doom ci la bokk ak xale yu soog a seen seen avenir dafa nekk en danger ay jafe-jafe yu métti la ñu wax te xale yi ñu ko wax kii ma doon waxal léegi ma suñu naakaan naataango muy euh, euh, parent d'élève di monsieur Dramé dégg ngeen ko moo ko wax ci euh, baatu nasaraan kii ma taxawal nii moom mooy yor kàddu étudiants yi ci étudiants yi monsieur monsieur Diakhaté Diakhaté aussi daf na ci lu mu mën ñun dugg nañ ci boor bu nekk boor bu ne dugg nañ fa fu ngeen xalaatu rek dugg nañ fa wax nañu ñoom ñaan nañ leen njekk li may daane leen nag mooy lenn dañoo bëgg li nga xam ni kenn mayuñu ko dañ koy dañ ciy fay suñu xaalis muy muy muy euh, xam-xam bi nga xam ne moom la ñu weccante ak ñoom mm. muy suñu am-am ak ñoom seen xam-xam mm. dama bëgg ñoom ñu dellu si booy euh, joxe euh, xale yi mën a nekk delluwaat ci classe yi mën a jàng mm. te du tee li nga xam ne ñoom dañ war nañ koo lijjanti mm-hmm. muy diggante ñaari pàcc yi nga xam ne ñoo am problème mm-hmm. quel que soit ndax problème boobu boo xam ne sax dafa jéggi Sénégal mm-hmm. ndax problème boo xam ne ay état ñoo ko séq moom mii diriger école bi ni nekk nekk njiit li moom waa Niger la ña nekk ci moom am na mauritanien am na gan waa ñu nekk ñëpp ñu nekk ci biir léegi nag du loo xam ni waxtaanu Sénégal moo koy lijjanti waxtaanu ay état la moo tax monsieur le euh, son excellence monsieur le président de la république bu ci jotee dina xool naataangoom yooyu nga xam ñoo ko ñoo ko seq ak ministre bi nga xam ne naataangoom yi mu seqal mbir mi ñoom ñu mën a waxtaan xool nu ñuy saafara suñu jàngoro jii nga xam ni bu lawee te jàngoro dañ koy faj ba muy tàmbali ndax bu gënee yàgg mën naa indi infection mën naa indi lu gën a egg foo xam ne boobaa kenn du ko mën a jiwee ndax école bi li ci des wee at li ci des baritul ah daanaka weer nangam sangam te encore dama bëgg a souligner leen ne école bi dafa may problème mu mbënd bu commencé taw kenn mënu fee dugg xale yi da xale yi seen rentrée bii ñoom toog nañu daanaka décalage weer yoo xam ne dañu doon ngacc ci école bi te dégg naa nag ci ay ba kii ñu ni euh, nawet bi na teel a commencé bu commencé xale fi ñu xale yi ñoom ñëpp amuñu pour ñëw bu dee commencé taw fu ñuy jaar ma bëgg i diplôme ak seen i même bu ñu am bulletin xale yi sax dafa am xale bi mën a dem stage yëpp ay problème la ne ñu ngi koy soog a wax waaye daaw ñu kii koy tëjee foofu nag di ñaan le euh, le euh, monsieur le président de la république di ñaan ministre bi nga xam Bocar Issa euh, Bocar Thiam na ñu ñëw ñu jàppale ñu ci li nga xam ni mooy jàngoro bi am ci école bi ñu ngi leen di sant leen gërëm wasalaam góor gi man foofu yëpp dugg nañ fa fu ngeen xalaat fu ngeen xalaat rek ñu dugg nañ fa fu ngeen xalaat ma man démb minuit ci guddi maa ngi xool fu ne fu mu mën a dugg da wallaay ñu fu ne ñu ngi fay dugg fu ne ku ne fëgg nañ sa buntu ñaan nañ la ñëwal nga nga ñëw wax ci euh, mbir mi am ci école bi nii bala muy dégénère ba bala muy jël foo xam ne du jàngoro ji gën a law waaye jàngoro ji nag mi ngi gën a law ndax euh, directeur bi euh, wax nañ ko waxtaan nañ ak moom nee na na gars gaay ñëw gars yi aussi wax nañ ñoom ñoom nee na ñoom na bi ñëw noonu la mbir bi demee directeur bi nee na na gars yi ñëw ñu waxtaan ñoom na wax ak gars yi gars yi ne ñoom soxlawuñu ko soxlawuñu directeur bi ñoom na ministre bi ñi nga xam ne moom moo leen euh, euh, yiir ñoom ñëpp na ñëw kon boog ministre dafa war a ñëw ba bind nañu waaye amuñu sax réponse xam nga ak ak acquis de réception nga bind nit mun la jot naa ko def nañ ko waaye amuñu xañ taluñu dañoo nekk seen mbiri bopp dañoo nekk seen mbiri ndax jamono Sénégal moo ñu moo lëmbee mbir réew mi taluñu te nag ñun ñun tal nañ suñu bopp tal nañ suñu njaboot ma dellu waxaat ko école bi ba muy doon école ba muy door école prix euh, public la woon public boo xam ni état yi ñoo ko yoroon doon fayal ñi fi di génn waaye ñu dem ba état yu am jafe-jafe seen biir léegi nag ñu jël ko privatiser ko ñun suñu njaboot gi fi nekk ñun ñoo leen di fayal. ñetti tranche par par par at te mu mu seer loolu nag mu seer ay millions la ñuy fay million la ñuy fay léegi nag bañ dañoo xaar dañuy fay fayloo ñetti pàcc pàcc bu njëkk ba fay nañ ko pàccu ñaareel ba fay nañ pàccu ñetteel bi ñu jotee pàccu ñetteel bi nag ci lañ commencé débrayer léegi nag loolu loolu moo ñu metti moo tax dinañ dem ci yoon. fa mbaxane doonee benn wax ñoom saisir nag ñoo xam ne école école bi ci boppam ñoom la ñuy yóbbu ci yoon ndax dañoo am ay jafe-jafe waaye mais problème bu mag sax problème boo xam ni ñun ñun ñun waajur yi nga xam dañoo am yaakaar ci école bi mel am tur woo xam ni man sax rus naa li ñuy waxee li ñuy yóbboo école bi man ca njëlbeen laa ko bañoon bugguma ko ndax école bi dafa am dafa am baat bokk na ci école yi nekk euh, euh, gën a ci ci yi dégg nga école bi waruñu waruñu koy yóbbu ci presse école bi ndax maa ngi xalaat sama diplôme doom ak sama diplôme doomu njab euh, ndatango yi ndax école bi am na école yi koy concurrence fii te waruñu koy yóbbu ci yoon léegi nag bu ñu demee ba ne parce que dañoo sës nit boo demee ba nekk ci impasse ni ko monsieur Dramé waxee ma amatoo foo jaar foo jaar nga wax nag moo tax ñu soog a wax nii cri de kër bi du ñun de mais suñu ñun ñuy fay ki mais xale yi liñ liñ gën a yërëm xale boo gis ne san amatul dara ñoom ñëpp ñu ngi jaaxle damaa bëgg nag damaa bëgg ñu delloosiwaat xel yi mi euh, directeur bi ak jàngalekat yi maa ngi leen woowaat bala ñu egg ci ministre bi nañu xam ne ñun dañoo ñoom dañoo yoon njaboot ni ñun nañu dellu si ñu ànd lënkoo ñun de ñu ngi jàppale képp koo xam ne yaa ngi indi injustice ci école bi dinañ la jàppale mais dama bëgg ñu delloo xale yi ci classe yi ñu eggale li ñuy xeex te wax nañ ko waxati ko nañu ñëw ñu dugal xale yi ñu jàngi waaye li nga xam ñu war nañ koo xeex incha allah ñun nañ ci ànd ak ñoom ba am li bëgg bu incha allah bu neexee yàlla loolu nag loolu nag loolu loolu moom du ma ci bëgg a dugg mooy li ñuy li ñuy ñaxtu ñoom la ak direction bi ndax loolu buñ ci duggee day xaw a am complexe ndax du mbirum Sénégal rek mbirum ay ay état la donc du loo xam ne ki fi nekk état bi Sénégal teg ko fi teg ko fi Afrique waa Afrique ñoo ko fi teg te école bi aussi jàngalu ay sénégalais rek de du ay sénégalais rek lay jàngal euh, ni sénégalais yaa ngi fi ni waa Niger ñu ngi fi ba muy juróom-ñaari yoo xam ne ñoo fiy jàngee ñoo fiy jëlee diplôme donc dafa nekk loo xam ne du Sénégal rek moo ko géré incha allah. donc je pense que parent yi wax nañ li fi xew yëpp ñu ñuy dolli rek. donc actuellement suñu suñu préoccupation mooy reprendre cours yi mais reprendre cours yi si meilleures condition possibles parce que mënuñu ñëw rek reprendre cours il faut que ñu reprendre cours dans les meilleures conditions possibles et dans les plus brefs délais. la connexion internet par exemple nañuy def yenn saa devoir sans connexion internet on est obligé ñun jënd suñu connexion internet. ak labo il y a des il y a des il y a des labos qui ne sont ne sont pas équipés et puis il y a un ensemble de problèmes. Mm-hmm. euh, déjà au niveau de, de, de, de la situation de l'école, la situation physique. Donc voilà. Donc, léegi le lundi dinañ def benn manifestation ñun les étudiants ak peut-être les ak les parents ñun ñëpp ñu def une mobilisation woo presse yëpp gën a exposer problème bi et vraiment ñun li ñu soxal mooy les organes de gouvernance ñu yëg li xew fii parce que sincèrement on est fatigué et depuis ça fait ça fait longtemps que ñu ngi leen di alerter di continuer di leen alerter mais pas de réponse